waaye imaamu ahmadu du woon imaam ci tasawuf ndax moom ak imaamu shaafi doon doonoon sëriñam dañ daan boof ci kanam maaruful karxiyu mi nga xam ne amuloon xam-xam waaye suñu borom daf ko xamaloon tasawuf muy nit ragal yàlla di nit xam yàlla imaamu shaafi bu ñu ko masaan ne borom xam bu toll ne yow di boof kanam maaruful karxiyu mi nga xam ne amul xam-xam mu ne laa téyel sa gémmiñ waay ana lu ñuy dee xam-xam lu dul bëgg mel ne kii imaamu ahmadu noonu la daan waxee moom it naka noonu ashaybaanu raa yi noonu lañ daan boofi ci kanamam annaasikul badawi nga xam ne kon ñoom muy malik ak shafi ak abu hanifa ak ahmadu ñoom ñi nga xam ne ñépp ci ñoom la ahlu sunnat di sukkandikoo li faj ci ñoom ku mel ni al awzaa yi ma ca sham wala lays ibnu saad ma ca misra boroom xam-xam yu mag yooyu nga xam ne ahlu sunnati génnuñu leen ci ñoom la ñu yem ñoo nangu ñu nekkoon kilifa ci tasawuf ba nangoo nekk seen gannaaw imam ahmadu bu daan jàngale ci Bagdad Bagdad abu hamza al Bagdad yi nekk ci wetam dafa naan ko maa taqul fii haada ya suufi yow mu nga xam ne suufi nga yàlla leeral na sa xol loo wax ci masala mi lu mu ko wax ci lay wéy limam ahmadu abdullahi doomam bu masaan ne ko yow ñii ngay boofi ci kanam maaruuful kër ndax maaruuful kër am na xam-xam mu ne ko noppil lu ñuy doyee xam-xam lu ngir bëgg a mel ni maaruf maaruf nu meloon ragal yàlla xam yàlla ragal yàlla xam yàlla nag ñi ngi koy jële ci nit doomu aadama ci boppam yàlla sag ko mu ne cëpp ci suuf doylu ba soxla ba aajuwowul nit ñi bu juddoo nit ñee koy for ñoo koy sang ñooy dagg lu tëm bi ñoo koy ngénte ñoo koy jàngal ñoo koy yar bu deexee ñoo koy sang ñoo koy sang ñoo koy jullee doomu aadama mënu la doylu walis doomu aadama doomu aadama lu mu xam dañ ko ko beneen moroomu doomu aadama moo ko xamal ba mu muy àgg ci mën a xam ci yàlla muy al ilmu la du nii kon nit ki mënula weesu doomu aadama mukk mënu la weesu doomu aadama nag ku ne mënula la jëriñ moroom ma nit jëfam rek a koy jëriñ ak réer la nit bu fekkonte ne jëfam rek a koy jëriñ bu dee duñ ko ñaanal ndax ñaan gi du jëfam kon duñ ko jullee ndax buñ ko tëralee di ko jullee allahumma innu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika kaana yashhadu an laa ilaaha illa anta wahdaka laa sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi allahumma in kaana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kaana musii'an fatajaawaz an sayyi'aatihi allahumma laa tahrimna laa tuftina ba'dahu suñu borom kii sa jaam la di sa doomu jaam bu góor sa doomu jaam bu jigéen Ali ibnu Muwaffaq nee na damaa nelaw daal di gis mel ne dama dugg àjjana bi ma duggee àjjana ma daal di gis benn waay boo xam ne dafa toog ci kaw taabal gi ko beer lépp xeet lu gën a neex lu xel mun la xalaat mooy ci malaayika yi ittiwoo wuñu liggéeye wuñu lu dul di ko di ko xéewal rek di ko indil di ko bernd di ko teral di ko màggal rek loolu donc mu toog malaayika nekk ci wetu ndeyjooram malaayika nekk ci wetu càmmoñam ñii di ko leel ñii di ko indil ndox muy naan muy lekk di naan di waxtaan di xàqataay nekk ci mbir moo xam ne dara du ko rax mu ne ma gis beneen waaye boo xam ne dafa taxaw ci buntu àjjana di xool kanam yi nit ñi ku ko ci neex mu dugal àjjana ku ko neexul mu bamax leen a jàll. mu ne ba ma weesoo ñoom ñaar ma àgg ci xasiratul quds li ñu tuddee xasiratul quds tubaab bi di wax lam seen selle nee na ma daal di fay gis ci biir pavillon xadra ba téye suñu borom bu sell ba nee ma gis fekk fa benn jaam boo xam ne benn nee na mu ngi nag bëtam yaa ngi bokk ko rek mu ne jàkk suñu borom tabaraka wa taala ko xool rek di ko seetantal du xef sax nee na ma daal di laaj ridwaan bi nga xam ne mooy bëkk déggoo àjjana ni ko kii kan la mu ne ma kii de mooy maaruful karxiyu dafa jaamu suñu borom jaamu ko ngir ragal safara wala ragal mbugal jaamu ko ngir bëgg àjjana wala bëgg xéewal wala ngir bëgg jenn daraja dafa jaamu suñu borom rek ngir bëgg ko ngir sopp suñu borom daganalal ko may ko lu mayul kenn ñun ñi dañuy dem àjjana ba yàgg ca suñu borom jox leen landu fil kasi bi bu ñu ñëwee mu soog leen a feeñ ci diir bu gàtt buñ ko xamee buñ delloo seen kër seeni soxnaan ngeen fi bàyyoon fakk leen ndax xéewal gu màgg gi ndax dàqaay gi mu dàq àjjana mu ne su ko xiyaar kooku nag suñu borom may ko moom mu jaj rek waaw muy maaruful ka xiir ngir sopp gi mu soppoon suñu borom loolu moo tax ma ne leen sopp gën a ëpp doole ci mboolem buum yi nga xam ne mooy yeew ñaar ñi ci def ñi mu weesu bisir ibn al-haris la ak al-imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhum ajmaina wa ta abu sulaiman ad-darani neena kep ko xamne tay ji sa bop la soxlaal lo lek lo naan fo dëkk lo sol ko noppaloo foo nelawee nee na ëllëg yow momu sa bop moy doon sa soxla lu la musal na lu lay na ngay demee àjjana na ngay mucc ci xisaab na ngay jéggee siraat waaye ki nga xam ne item lépp mooy boromam bu ëllëgee boromam dong ngay soxlaam keroogee xool suñu borom dong ak settantal ko ak nekk ak moom di wétali konteeg moom mooy lii doon itteem